yal na leen ko yàlla may yéen ñëpp li may dénk sama bopp personnellement di leen ko dénk bokk na ci bu moytu suukar suukar baaxul suukar baaxul te dafay gaañe euh, fii ci ndar ak ci réew mi feebar yi fi gën a gën a siiw bokk na ci jabet ak maladie cardiovasculaire yooyu yëpp jabet mooy maamam moo leen di jur ak bët yu yàqu ak tànk yu yàqu ak rein jalis ak yeneen ak yeneen yal na ump jullit léeg nga dugg ci kër fekk xale yi di ndékki wala góor gi di ndékki teg taasu kafe mbaa meew mbaa dute def ci fukki doomu be dégg suukar ak juróom-ñeent di dolli war nag naan nii di jeex xam nga loolu mi ngi mel na ku ubbi sa yaram jël pikiir def si suukar di chargé di suukar di chargé di chargé di chargé am na fu su fa tolloo yaram bi ak deret ji attanul suukar dafay yàq sa yeneen cër dem ci xol bi dem ci bët yi dem ci tànk yi dem ci rein yi nit ki na sax du amati njariñ doo mën di jaamu yàlla est-ce que jar na ko maa ngi leen di dénku waxuma bàyyi suukar mais wàññi suukar nga làmmiñ loo koy yar ca lay màgg bu sayri ne an nafsu ka tifli in tuftimhu shabba ala xubbi radaai wa in taftimhu yanfasimi nee na bakkan mi mel ne liir bu tuuti soo ko tàmmalee namp ween day màgg rek di laaj ne soo ko feralee xam ne lii mooy fer bu jeex ci moom làmmiñ bi da ngeen koy yar ku daan def fukki suukar

na ngeen di naan ndox su bëggee naan ndox nag doo naan ndox mu sedd ndox mu seddul muy hydrater sa yaram sa biir tension bi température bi mi ngi si 38 ci tàngoor xoolal fii su ñu amoon bëccëg 38 degré nan la ñuy mel biir bi loolu fi nekk yaram bi nga jël ndoxu 5 degré tëmbal ci biir ñaari yooyu explosion lay def ci. ngeen gaañ seen bopp yaakaar ne yaa ngi def lu neex fekk poson ngay dugal ci sa biir yaram tôt ou tard daf lay gaañ ngeen di naan ndox tàmmal mag ñi naan ndox ku lekk ba pare mbaa nga naan ba pare nga teg sa butéelu ndox nga naan ka convenablement ba mu jaar ci sa yaram gis nga boisson yi tudd boisson gazeuse yi gars yi bëgg coca cola di ci naan par ay ñaari butéel par jour mu neex lool mais poson la posan la poson la poson daf leen di gaañ daf leen di gaañ ngeen bàyyi ci xel maa ngi leen di dénku al riyaada al badaniya activité physique lekk ceeb toog ci suuf dank ceeb ceeb bi pare ñu indil la mango ak xaal nga pare teg sa siwo njar ak bisaab ŋadd sa ŋadd guro xamal ni nga sa convocation de salati nga est-ce que xam ngeen ni benn kuddu ceeb benn kuddu ceeb équivalence am mooy fukki begg suukar ak juróom benn fukki ak nga jël sa vingt paquet suukar nga añe te bokkul ak la nga ndékkee woon ak mburu ma ak beñe yi ci tàkkusaan ak somb bi ak riz au lait yi ñu goor xam nga yii de ay musiba la suñu xamee xàmme dem gis gis ñu mu lor suñu amee sunu njaboot dañ leen wax ni leen moytu leen lii moytu leen lii maa ngi ñaan ñepp ñu yalla may ñu mën sport professeur d'éducation physique ñi ci ëpp nañu boole seen yëf jaamu yalla di social dajale mag ñi ko bëgg ci gox yi ak ndaw yi ko bëgg ak jigéen yi ñu def ay randonnée waxuma ne ngeen wax waxaloo leen bu duñu mën dox dañuy dox dox